y no caí maa ngi fi rek Fatim. yàlla bu baax. mais lamb ji ba tey kenn gisul. lamb ñëw naa maa ngi seetaan si doomu. mais waxuñu seet. waaw. bëri bëri waaw gëj naa bëri nag de waaw. lu waral loolu dafa mel ni ku sell ki moo la tënkoon. non dama ñàkk jot tuuti rek loolu la rek. Uh-huh. mais yaa ah? biir lamb. waaw moo tax ma ñëw seetaan si lamb. mais ku la joxoon isa combat bu bëri. non man sama mbër yi nii. ngeen. non tekki wu ma sax mais jot bi moo amul tuuti rek dama xaw a manqué temps tuuti rek. waaw mais à part ça nan waa ah, gëj naa fi ñëw de mais daa mel ni neex na de. ah. daa mel ni neex ah? na. li ma ah gisoon fii li ma li ma si daan gis moom laa gisaat rek neex na de. am na changement wala. waaw am na changement comme def nañ fay vaar ay yu bëree xaw na am tuuti changement quoi yi ma gisa bokk. ci dama la daan laaj tout le temps nga naan ma Tëngéej daa mel ne boole wuñ ko ci làmb mais depuis loolu nan nga gisee. sant yàlla ñu ngi ñëw ndànk-ndànk mais war na gën a bousee war na gën a mën a yéeg. comme nan. waaw comme comme maanaam ñun tey par exemple doomu tey dafa war a daan incha allah ci kattanu yàlla ama neex daan ngeen booy si ndaw yi daan ñoom albur ak yeneen booy yëpp daan làmb ji gën a mën a yéeg. am na combat yi nekk suñu kanam nan nga ko gisee ku ci mel combat Balla Gaye ak Tapha Tine donte sa doomu day ak xam naa ci dara. ah man moom xaw ma si dara lu Tapha Tine ñëw naan nga laa ñaan yàlla rek. Ah. waaw. combat ah? mën naa yomb ci Tapha Tine. ah. ci Tapha Tine. ah avance ah, maa ngi nuyu ñoom ñaar ñëpp maa ngi nuyu Balla maa ngi nuyu Tapha mais Tapha sama xarit la. sama waay la dama koy ñaanal ndam taxul nag ma bañ Balla Gaye taxul ma bañ Balla Gaye mais Tapha laay ñaanal yàlla ndam waaw ndax Balla ko baax la xamuluma ko dara. nga gisee état bi coow li bari na këri Tapha mi ngi soog a yeewu këri Tapha Tine instant bi moog Balla ak bii dafa war a am différence. ah dafa musul nelaw musul nelaw benn mooy demee noonu mun nga ñëw tey du neex ëllëg mun na xarit noonu la rek mais Balla dafa moom ko waxam xam ni làmbam day am coow te mu bëree mu neex bu xeexee mu neex bu feccee mu neex waaw. ñaan Tapha ba tey dafa desee ñeme Balla Gaye loolu nan nga koy déggee. ah loolu moog moog moog làmb ànd moom. waaw mais dama yaakaar noonu ku mel ne Tapha Tine nga naan daa ragal Balla Gaye ah loolu yëm na mooy mais nag xaw ma nag exact nag waaw. ba tey combat bi nga xamante ne moom am na favori jom ah, xaw ma si xaw ma favori bi mais koy ñaanal mu am ndam. ah di ma si ma sa xarit rek ngay wax. ah non Ama dañuy déggante par téléphone rek waaw mais dama koy ñaanal ndam rek. nan nga gisee instant bi li nga xamante ni moom la Aziz teg ci côté empereur affaire roi des arènes noo koy déggee que ni Aziz mu ne Tapha Tine ak Balla Gaye ku ci daan empereur ba pare dañ lay fay sponsor yi da lay fay ba année bi dellu siwaat ak li nga xamante ne moom may cachet bi ñu lay wutal loolu nan ko déggee ñi ne Modou Lo lay xeex Modou Lo mooy roi mais loolu nan nga koy dégg waaw maa ngi nuyu Aziz di nuyu Balla ak Tapha ak Modou Lo yëpp dëgg fa yàlla moom Modou Lo moom. mention spéciale xamaluñ ko dara moom it ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax wax dëgg fa yàlla xamaluñ ko dara lu dul yiw ak sell jàmbaar daal xamaluma ko leneen loolu laa xamee comme ni ko nit ñi xamee ci làmb li Aziz Ndiaye wax nag man xaw ma si dara ni mu ko waxee amaana moom la concerné mais làmb moom benn roi des arènes la muy Modou loo waaw ah, muy làmb rek leneen la man xaw ma si dara mais roi des arènes bi tax ñuy wax roi des arènes Modou Lo moo ko yor instant bi nan nga gisee booy côté performance biñ def mooy booy yi nga xamante ne instant bi yoo nekk ci làmb. waaw ay champion lañ mais comme kan ak kan ngay cité. comme yow yow yaa ngi seetaan làmb yan booy nga gis que ñoom ñëw nañ ku leen jàppale làmb waaw dëgg la xanaa jàpp leen bu baax a baax rek waaw mais làmb moom wax dëgg fa yàlla moom am na benn performance boo xam ne nii aussi gars yi gën a jàpp dina gënal ñoom. comme ñan comme ñan. comme mbëri. mbëri booy ndaw yi. ah man booy yi ah ku si Mhm. mais instant bi yow yaa ngi jàppale mbaru Tëngéej waaw mais daal Alboury daal mooy suñu mbër waaw en tout cas daal moom na si gars yi gën ko geestu gën moom parce que ñaari combat deux bi deux ba ñaar defet nga am benn defet la am waaw daan Cheikh Tidiane ñaar daan ñu baree baree bari te mënaguñ ko jël dañ ko jël bëre ak moom moog bàcc combat la. Talfa diisu. ah Talfa diisu. booy yu bëri nañ ko jël bëre bëreeg moom bëreeg Alboury waaw waaw. sa poulain nga bëgg moom combat sa poulain nga bëgg moom. dégg ma. sa poulain nga bëgg moom. non du sama poulain kii dama ko yar mais dafa war a bëreeg gaay waaw. waaw jot na mu bëreeg gaay yi onze combat laa def benn defet waaw dafa jot mu bëreeg gaay yi seet jaan ñaari bi gaay yi bàyyi woon mu daan bi koy kay instant bi kon dafa jot mu bëreeg gaay yi voilà. mais léegi instant bi da ngaa ñëw seetaan si. waaw damaa ñëw seetaan si. waaw mais Alboury dañ ko jox si waaw euh, ah, ani premier ministre. damaa ñëw seetaan si laam. mu ngi fi. waaw kontaan nañ sant yàlla sant. namm naa la waaw <laughs> namm naa la. la raw. waaw ñu ci kawam rek. góorgóorlu rek. dama woon combat. man bëri naa ba pare bañ daan ma. dama woon combat. amaguma bëri naa ba pare bañ daan ma. ma ne ma amaatoo woon combat. waaw déjà du ma bàyyi. lan nga ni bàyyi. làmb dafa métti Fatou Mata da ngay préparé làmb lu ne mooy loolu. mais sa bi sa combat bi ba nga voyagé mu nekk se première sortie ban jàngat nga ci def. waaw bari na nag wax ko dëgg yàlla bari na parce que après combat bi sax laa ci gën a jàng. xam nan lu bëree bëree bëree bëree bëri. comme ñi daan jàppale jàppaleen tuuj la wala instant bi dañ la seetaan. waaw surtout si côté boobu tamit. dañ jàppale. combat bi dama ci ngeem wul quoi. lan nga tuddee ngeem. maanaam ñi ma waroon ñaanal ñoo ma ñaanal. yaa demul si ñoom wala koom-koom bi ma fa maa demul ñoom parce que dañ ma fa daan yóbbu te ñi ma fa daan yóbbu gisuma leen ma toog xaar yàlla yàllaa fi ne. ñu ne daan yóbbu nga gis. waaw te eh, munoo yóbbu sa bopp. non non non parce que ñoom ñoo tax ma daan fa dem ñoo ñoo ma fa daan téye loxo yóbbu ma fa. kon côté seetaan bi ñoom dañ la seetaan. ah ci ah, man daal waaw. problème. xa xaw ma xalaat boo ko déggee yàlla pour man aw ma problème quoi ak ñoom xëy na peut dañoo def li leen neex rek wala ñu dem ba mënatul. est-ce que ba nga jëlee combat woo nga leen wax ak ñoom. waaw peut si ñoo ma njëkk a yëg combat bi sax. wax nga ñoom ñoo ma njëkk a yëg combat bi te combat loxo la taxawee waaw. te après yankaaw daan la lu la manqué ci combat boobu. non am naa ko. li ma manqué li ma manqué woon xam naa ko. état bi toog xaar rek. waaw bu baax comme nag. da ma toogul xaar la laay def faat ma jot dama war a toog xaar xaar moom war quoi état bi amatu woon lu may yàkkamtee si làmb parce que làmb léegi dafa xaw a doy waar te man aw ma ku ma waxal man maa wane sama bopp ba làmb xam ma maa wane sama jàmbaar sama fulla ak fayda ba làmb xam ma. mais aw ma kenn koo xam ne damay dem si moom neexal ko wala waxal ma non non man maa wane lu war a mën a tax làmb xam ma kon nañ bàyyi booy yi ñu tëbal nañ booy yi ñu tëbal bu ma neexoon du ma bëree yankaaw parce que maa daan kii nga daan te maa daan grand frère doon ngeen ne daanu ma ko mais arbitre yàq sama làmb maa grand booy Dakar ni mu mel maa moom mais arbitre yee ko yàq te bu ma neexoon ma du ma bëree yankaaw mais làmb dafa maanaam dafa am lu mu laaj te dañ ko war a jox. mooy nañ ko teg ci yoon. mais ñu xool mbëri jox leen seen adversaire potentiel normal fan ma jàpp billaahi barki alxuraan. kon dañuy jàpp li nga waxoon ngay waxaat loobi la. waaw waaw bu baax. non yow xam nga ko fan ma jàpp. mais ci nan. non non am na loo xam ne peut être boo koy waxtaan bu yàggee dañ naan kii dafa soof dafa bëri wax dama sama wax bëriwul sama jëf ma ëpp mais nag combat bi yangaaw daan na ma maa ngi koy félicité mais nag li ma manqué. ah li nga xam ne moom ak gàllankoor ci combat xam naa ko te incha allah ci kattan dinaa ci gën liggéey bu soobee yàlla suñu borom. pare da ngay sóobu ci xale yi. pare gu ma ci xale yi déedéet pare naa barki yàlla pare pare naa ci booy. ndax la. ñaari combat laa def Fatma Dia 15 combats 10 victoires 5 défaites 15 combats 10 lan mooy sama problème bëriwuma benn grand frère de ay booy kete laa ay combat ñaar dem barki alxuraan da ngay gis booy bu bëri cinq combat quatre combat ñu jox ko paa nañ bàyyi loolu nañ bàyyi loolu nañ ñëw ñu bëri. dama ñëw te Baara man maa ngi fi sama wax bariwul mais maa fi boo yow moom boo ñëwee moom da ngaa bokk kër gi te yow da ngay suñu yaay booy kon dañ lay ñaanal jàmm rek yow amal jàmm rek boo amee jàmm rek naaj sax. aja doom doom ndey. y no caí